bunt yi daañu ko di yittewoo ndax buñ la digalee jàpp mbaa sangu farata mën naa am nga am ci sa yaram ab gaañu gaañu boo xam ne boo ko bëgg boo ko bëggee raggee ni nga bëgg raggee fa nga xamee ne dara dalu la fa doo ko mën mbaa da nga ca gaañu takk-takk bi nag mooy boo amee gaañu gaañu moo xam góom la moo xam leneen la ci sa yaram foo xam ne daal ci ba ngay jàpp mbaa ba ngay sangu farata ragal nga ne boo ko raggee na nga ko war a raggee mën nga caa jaare faatu wala mën nga am cër boo xam ne la mënoon du ko mënate wala nga ragal ne tawat mën na la caa dale yoo xam dal la woon wala tawat bi la daloon far ca yokkoo mbaa tawat bi la daloon far ca yéex a wére kon li ñu ko wax mooy su fekkee mën ngaa jékki-jékki raay ko doo ko garabal doo ko ŋaaw waaye sa loxo mën naa jékki-jékki rek na mu tooyee nga awale ko ci kaw ndànk kon loolu ngay def jékki-jékki tooyal sa loxo awale ko ca kaw loolu moo tudd ak masaa su fekkee mënul jékki-jékki masaa ko waaye boo ko garabalee ba àggal da nga mën a raay ci kaw garab ga mel ne boo ci diwee danga ci diw ba àggal da nga mën a raay ci kaw garab googee kon nga diw ca la nga koy garabale ba noppi door a raay ca kaw su fekkee ne itam boo ko garabalee ba àggal te sax nga mën a raay ci kaw garab ga ñu seet ba xam boo ko bandaasee wala boo ko muuree ñu wax ŋaaw te nga mën a raay ci kaw ndéet su fekkee ne boo ko bandaasee wala boo ko muuree mën a raay ci kaw bandaas ba mbaa ci kaw muuraay ga rek nga def noonu doonte sax boo koy bandaas da nga bandaasaale loo xam ne bokku ci waaye boo koy muur da nga muur loo xam ne bokku ci waaye sattal ga moo ko laaj loolee nga xam ne gaañu gaañu bu àggu fa te muuraale nga ko da nga ko mën a masaawaale maanaam raayale ko rek bàyyi kon seetlu nga ne dañ koo tegale ñett yu bokkut gaañu gaañu ba soo mënee jékki-jékki raay ko da ngay jékki-jékki raay ko su fekkee mënoo jékki-jékki raay ko waaye boo ci defee garab ba noppi mën a raay ci kaw garab ga nga def ci garab ba noppi raay ko su fekkee boo ci defee garab ga sax nga mën caa masa waaye nag boo ko ŋaawee mbaa nga bandaas ko da nga mën a raay ci kaw bandaas mbaa ci kaw muuraay ga ba tey nga def noonu daañu wax nag bu fekkee ni mënu koo laal ci genn wet daa méttee métti ba nga xam ne mel ne laax ni ñu ko waxee loxo mënu koo laal su boobaa nooy def daañu ko wax dafa misaale boo amoon foo gàjj ci saw yaram mu daal def kon ab góom mbaa nga ne li mu wax moom la misaale boo gàjjoon ak sa diit ci sa yaram wala nga ne buñ la opéré woon mu def góom yooyu yëpp booy jàpp wala ngay sangu farata te mënoo koo raxas na ngay raxas si fawir waaye mën nga jékki-jékki raay ko kon na nga koy raay rek soo ko mënut te boo ci defee garab ba àggal daal di koy mën a raay nga def ci garab ba àggal daal di koy raay su fekkee ne boo ci defee garab doo ko mën a raay waaye boo ko bandasee wala boo ko ŋaawee doonte da nga koy ŋaaw ay ŋaawi ŋaaw mbaa da nga koy bandaas ay bandaas yu bari waaye kon da nga ko mën a raay kon nga def noonu bandaas ko mbaa nga ŋaaw ko daal di raay na ci kaw bandaas ba wala ci kaw ŋaaw ga ba tey mu ne góor bu kaalaw woon wala mu sol mbaxana wala jigéen mu sóoru te góor ga mbaa jigéen ja ragal ne su dindee la mu defoon ca bopp ba sedd bi dana ko solu mu daal cee amee ngaañ kon yoon may na ko mu masaa rekk ci kaw kaala ga wala mbaxana ma wala musóor ga du jar muy dindi loolee mu def ca boppam su fekkee nag ba mu kaalawoo mbaa ba mu solee mbaxana mbaa ba mu muuroo am na luy feeñ ca bopp ba loo xam ne mën na koo masa moom na masa loola li ñu digle foofu mu mel ne daa yomb te mooy raay fa nga xamee ne mënu koo ragg ragg fa nga xamee ne mën na koo ragg
la ne day fekk nag mu wóor ko ne bu raggee foofee nga xam ne moo wir raay foofee nga xam ne moo gaañu itam du ko wàññi dara waaye bu ko wóoree ni bu ko defee jële ca ngaañ bu méttee métti na bàyyi te dem tiim bu mu raay fa gaañu bu mu ragg fa gaañuwut na tiim rek ba tey bu fekkee ne la gaañuwut ci aw yaramam dafa néew lool mel ne benn loxo mbaa benn tànk rek moo ca gaañuwut te des lépp ci yaramam dafa gaañu dañ koy jéggal ne ko faral tiim du aajoo ngay ragg loolee nga xam ne moo gaañuwut di raay loolee nga xam ne moo gaañu faral tiim rek lay tax ñu ne ko daal raxasal fa gaañuwut raayal fa gaañu te mënoo koo raxas day fekk mu wóor ko ne moom bu defee noonu du ko wàññi dara dara te fekk it la gaañu wut ci yaramam bañ a néew lool lool su loola néewee lool lool ñu ne ko fal bàyyi lépp te tiim dafa àgg ci wax gaañu gaañu ba bu àggee ci mëni su ko laal benn ab laax ni ko wala fi waxee loxo mënu koo laal mëni su caa teg dara bu doon tiim sax du ko mën a masaa ci suuf mu nekkoon nañ seet ba xam gaañu gaañu boobu dafa nekk ci barabi tiim yi te mooy kanam ak loxo wala daa nekk feneen daa ñu ko wax gaañu gaañu boobu nga xam ne mënees koo laal bu nekkee ci kanam mbaa ci loxo muy barabu tiim loolu loolu kon lañ cey dégge mooy bu tiimee itam tiim ba du mat ndax foofu mënu koo laal bu doon jàpp it jàpp ma du mat bu doon sangu farata itam cangaay la du mat ndegam nag jàpp ak cangaay ñoo gën a yaatu ak làng te ñoom ñëpp yam amu ci kenn koo xam ne da nga mat bu ko doon def day bàyyi tiim te bu ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata waree mu sangu su fekkee ne fa gaañu ba mënu koo laal ci kenn wet nekkul ci kanam nekkul ci loxo feneen la nekk kon lañ ciy dégg mooy bu doon tiim moom tiim ba du manqué dara ndax tiim weesuwut kanam ak loxo yi te bi yoon nekkul ci kanam moom gaañu gaañu ba nekkul ci loxo bu dee jàpp nag te gaañu gaañu ba nekk ci cëri njàpp yi moom faaw njàpp ma manqué ndax fa mënta laal faaw mu dégg ko bàyyi ko fa bu dee sangu farat nag moom faaw rek moom cangaay la manqué kon ndegam kenn kee bu ko defee muy tiim moom dana mat du manqué te yaar yee moom bu leen defee dañuy manqué foofu am na ñeenti wax am na ñu ne ak lu mën di am day tiim ndegam moom bu tiimee mat na tiim rek am ñu ne bu ko jàpp waree na jàpp bu ko sangu farata waree na sangu fa mu mënta laal nag mu bàyyi ko rek noona loolaay dogal ba nga xam ne yaari wax yooyu dañoo safaanoo ñeene na tiim rek ak lu mën di am ñeene déedéet bu ko jàpp waree na jàpp bu ko sangu farata waree na sangu yooyu yaari wax safaanoo waxu ñetteel bi moom day teqale day wax ne bu fekkee ne la gaañu daa bari nga xam ne bu doon jàpp mbaa muy sangu itam la muy rag du bari kon na tiim bu fekkee nag la gaañuwut daa bari nga xam ne bu doon sangu farata mbaa muy jàpp dana raxas lu bari ci cër ya kon bu ko jàpp waree na jàpp bu ko sangu farata waree na sangu te nag fa mënta laal mu bàyyi ko bañ koo laal wax bi nga xam ne mooy bu ñeenteel bi nag te moom mi taalif moom la la tànnal ne la moo ngay def moo ci gën a sonle moom mooy mu boole jëfandikoo ndox mi ak tiim mel ne bu ko jàpp waree julli jot day jàpp raxas la mën raxas bàyyi la mënta laal bu taxawal julli rek defee nag mu daal di tiim nga tiim moom day mat ndax nee nga gaañu ba nekkul ci kanam nekkul ci loxo li tax loolu sonne mooy julli gu ne noonu lay def ndax dañoo jàppale njàpp mi ak tiim bi ñu ànd ñoom ñaar nga xam ne kon bu tisbaar jotoon mu topp wax jooju daal di jàpp na mën a jàppe baat daal di tiim nag julli bu takkusaan jotee it noonu rek lay defaat ak geneen gu mën doon rek saa yu julli farata jotee daal moom dana jàpp raxas la mën raxas ba noppi nag tiim tiim mat door a julli loolu daa sonle bu fekkoon ne bu defut li waral njàpp dana mën a doyloo njàpp moom jàppoon kon mu baax waaye faw day jàppaat tiimaat ci julli gu ne daa mel ne kon daa war a jàpp ci ñi wax ne moom bu ko jàpp waree na jàpp bu ko sangu farata waree na sangu fa nga xamee ni yàlla dogal mënu koo laal nag mu bàyyi ko rek noonu xam ne loolu mooy dogal ba su fekkee ne mënoon naa raay fa gaañ ci yaram wa te du ko garabal du ko bandaas nga xam ne kon jëm ni yaram wa ci boppam la raay kon moom li xeek muy def lu tax jàpp rek saa yu julli jotee mën naa julli waaye nag bu fekkee da ko garabal ba àggal raay ci kaw garab ga wala mu bandaas ko mbaa mu ŋaaw ko doora masaa nag ci kaw bandaas ba mbaa ŋaaw googee moom saa yoo xam ne garab googee moom moo ko dindi ndax defaati garab gu yees wala bandaas boobee wala ngaaw boobee moom moo ko dindi ngir defaraat ko wala boog daa jum rek xëcc ko mu dañ wala loola mooy jekki-jekki rotal boppam lu mu ci mën doon nga xam ne la mu raayoon mu wecc ci raxas cër boobee yàqu na léegi kon bu fekkee ci julli la nekkoon julli ga yàqu na dañuy jàpp ne day mel ne ku julli ba ci biir fàttaliku ak cër bu mu ëggut wala ab digg boo xam ne tooyut su fekkee nekkutoon di julli nag moom te bëgguta ñàkk jàppam moomee kon na daal di gaaw delloo ci garab ga masaa ko wala delloo ca bandaas ba daal di koy masaawaat masaa gu yees su fekkee ne yéex na koo def ci tayeef rek jàpp mi yàqu na faaw faaw day jàppaat ba noppi masaawaat loolee masaa gu yees kon say boo takk ne bu fekkee raayutoon ci jëmmi yaramam garab gam defoon ca kaw ci la raayoon wala bandaas ba wala lam ko ŋaawee moom la raayoon te loolu nag dañ na bu fekkee ci julli la nekkoon julli ga yàqu na bu fekkee nekk soon julli nag te bëgg naa téye njàppam moomee kon nag gaaw daal di koy delloowaat na meloon te masaawaat ko masaa gu yees day amee ateb muwaalaatu al muwaalaatu nag weesoon nañ ca fi noonu waxee njàpp leeraloon nañu su fekkee fàttee te mu def ko ak bu fekkee tëli am gàllankoor moo te mu def ko lu ca nekk ba tey bu fekkoon ne fa mu daan raay moo xam jëmm yaram waa moo xam ci kaw garab ga la moo xam ci kaw lam ko bandaase woon la su demee ba foofu wér na ko daal di ragg ndax dañ ko mayoon ak jàppandal ci raay rek bàyyi te léegi wér na nga xam ne kon bu amee woon jàngaayul farata fa gaañu woon da ko raayoon rek ba muy sangu jàngaayul farata la su demee wër day gaaw ragg ko su ko tayee bañ a gaaw ragg ko rek jàngaay la yàqu na faaw mu war a sanguwaat bu doon jàpp ma itam mënu ko woon a ragg mu daal di koy raay su loolee wéree te jàppam moomee tëjut na daal di gaaw ragg foofee ndax raay gam ko raayoon ngànt ko waraloon léegi ngànt li jeex na kon na gaaw daal di koy ragg su ko tayee gaaw ko rag rek jàpp mooma yàqu na faaw day jàppaat meneen jàpp